waaw euh, xam nga parfois nag euh, dañuy wax ni ñi xex ñi jamarlo ñi saga c'est parce que amuñu ay argument yu objectif so amul ay argument yu objectif euh, da ngay remplacer lolu par ay invective par ay saaga mais je crois que ñun ñi nga xamantene ñu ngi bok ci coalition Benno Bokk Yaakaar and ak le président Macky Sall on a des arguments objectifs à faire valoir ba taxna amna ci yo xamantene peut-être du ñak yenn euh, esprit égaré ñuy top opposition bi ci yenn mais nous avons des arguments argument yo xamantene ne buñ ko sur la balance euh, mën na peser pour nous je crois que ce sont les gars de l'opposition ñom ñoo njëkk wax ni y aura pas d'élection ici au Sénégal bu fekkente ne euh, Khalifa Sall ak Karim Wade ñu ensuite euh Mambay Niang organiser une meeting fële ci VDN ba ñu ñëw je crois que ci le defee déclaration Bob. man en tant que sénégalais du en tant que militant de la paix, mais en tant que sénégalais je n'approuve pas cette cette cette déclaration là je ne l'approuve pas man je crois que euh, on est appelé sur un autre terrain Sénégal ñun sommes ko moom ñun ñoo ko moom bu tàkkee euh, duñu fi

am deuxième mandat ay études hein. c'est des études Karim ku Khalifa Sall maintenant comment faire il fallait c'était un travail qui date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps parce que nous avons que la deuxième mandat C'est pourquoi aujourd'hui nous, ñu amendement qui ba a hein, revue revue constitutionnel euh, constitution constitution kii euh, nous mu euh, un fichier électoral bi lépp ñu hein, jëm ci wal élection dañoo wax ni carte lu melni carte électeur il faut être électeur pour dem élection voilà lool mo don nek président il savait que euh, là ils pouvaient bloquer Karim c'est ça ils ont utilisé ça hein nous avons carte électeur. C'était ça, c'était prévisible. C'était ça. Nous, on savait aussi. C'est pourquoi on a insisté à ce qu'on n'avait pas un plan B. Parce que c'était à nous pousser d'avoir un autre candidat. Or que, en politique, c'est pas ça. Il y a le charisme, il y a tout ça. Karim, aujourd'hui, il pèse lourd. C'est pourquoi on a insisté pour qu'il continue à être notre candidat. Maintenant, en politique, je déchèque là. Dobaï, ñu ñu bàyyi la ñu malmené la nga taxaw ñun non on accepte c'est pourquoi aujourd'hui conseil constitutionnel on attendait ça on savait que aujourd'hui du jàll maintenant le combat il faut il faut continuer à le faire mais aujourd'hui l'ol day yak démocratie Sénégal su n'est xam nga soo le Côte d'Ivoire lu mel Côte d'Ivoire lan moo ko lan mu un problème quand ba ba ñu indee affaire ivoirien euh, ivoirien te nit ki fa nga un ivoirien pour source pour nga ma nekk gis nga lu nous, xam nga nous, mu problème lay ni. tey bag boo xool ko maintenant moo tax loolu baaxul si aw dëkk aw dëkk euh, soy dem élection bu jël di wax diwooy dem ak di warul dem loolu baxu sa aw rew rew bo gis mo am problème loolu. ça c'est une situation très grave loolu noonu noonu c'est-à-dire ce n'est même pas digne que kenn ko xamantene une haute autorité la ngay wax lu mel noonu puisque man bima len leen ci ci ci ci ci ci télé bi man je ça m'a fait penser à une milice te je crois que wa, wa pouvoir ñom ñoo yore doole bi donc ça ne valait plus la peine que ñoom ñuy dem ji outil ay nervis di len di len di len di len jël hein di di di len manipuler euh, contre les les les citoyens loolu noonu du du du du du yoon waaw mam Mbaye Niang moom côté bobu noonu vraiment euh, def na lo xamantene war ko def. conseil constitutionnel dal c'est une grande honte pour le Sénégal conseil constitutionnel rusloo nañu encore conseil constitutionnel ñom dinañ ko layoog yalla conseil constitutionnel dañ ni fogoon ni ay kilifa lañ ñi nga xam ne ni vraiment. kenn du leen te kenn du leen euh, def def loolu li nga xam ne ni jaarul yoon parce que ñoom dañoo prêter serment dañoo waat seen diggante ak yàlla liñ def xam nañ ko teguwul si yoon Macky Sall te gis nga bële guddee fu mu mujjee CPI la jëm moom ma ma may ñaax moomu le na lijjën sunu vingt neuf milliards ba muy wax mu ngi wax naan ay ay nervi mais ay nervi ñun ñun population la ñu àndal population moo mën nervi moo mën police moo mën gendarmerie population ku wedd na nga laaj Compaoré